procédure laa respecté dañ ma song ma dóor ay coup de sommation. mais ki la bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. mandat bi nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la damaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. télévision Futur Média ñi ngi dellu di leen nuyu mbokk yi ci seen émission faram fàccee ni ñu koy amalee àllarba boobu jot ci waxtu bi ñu am mbégte dellu ci ak yéen euh, muy émission boo xam ne nag dañuy waxtaanee tolluwaay réew mi ci wàllu politique euh, di ci dalal ay gan yoo xam ne jàpp nañu ne euh, seen xalaat dina gindi askan wi ci tolluwaay réew mi ci wàllu politique am tey nag ñu am ci gan goo xam ni mi ngi bàyyi ko ci parti politique boobu di APR. Euh, moom euh, Thérèse fay Diouf lay wuyo moom la ñu dénk case de tout petits ak lépp lu aju ci petite enfance muy xale yu ndaw yi euh, moom la ñu ko dénk mu nekk itam kilifa ci parti boobu di APR nekk maire ca Diarekh tey ñu am mbégte di ko recevoir ci émission Faram Facce ak télévision Futur Média madame le maire maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape di la gërëm ci invitation bi. Mhm. di nuyu mbokk Sénégal yi ñuy seetaan yépp. Mhm. fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. jërëjëf euh, madame le maire euh, fay mu mel ni nag ñi ngi dem ci mandat bu mujj bu président Macky Sall. Mm mm-hmm. ce que amuloo dara loo ci euh, rëccu ndax ku ne gis na taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci ci opposition bi ku ne gis na itam euh, taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ba nekk maire est-ce que bu ñu génnee ci premier mandat deuxième mandat amuloo ci ndomb tànku. ministre wala bu député wala loolu mbaa du am dara lu la ci déranger. <laughs> merci beaucoup xam naa mën nga bëgg yëngal euh, comme ni ma wax léegi rek danga may may d'abord ma jaale sama mbokk waa Fatick yooyu. Ah, ci xew-xew boobu am foofu noonu may jaale tout la famille. Mhm. Koyta bi nekk Mboubaan ci biir commune Fatick di leen di ñaan yàlla na yàlla. Euh, may leen xolu muñ mais tamit suuf sedd ci kawam. Mhm. Euh, ci li ma laaj nag Pape ba dama jàpp nekk rek euh, regret moom man awma ko ci dara ndax engagement politique engagement la. Mhm. et bu ñuy engagé wu je pense que y des aspects macro yi nga xamante ne ñoom ñooy transcender même les les les désirs personnels wala mhm, individuels. ba tax na tey jii mës naa ko xàppale fenn. Euh, sama fierté d'abord mooy gis euh, le Sénégal émergent nekk di nekk une réalité partout dans le Sénégal des profondeurs ma mun ci lister par exemple une commune comme Diarrère fu ma nekk maire nga xamante ne xëy na sama position tax na tey jii nii lépp lu nga xamante ne nekk na ay ngëneel ci ñoom euh, ñu ngi koy jot luy dem ci wàllu ay réalisation yu bëri. dem d'accord man li ma li ma li ma laaj rek fi ma ko teg. madame la maire donc loolu laa wax. non c'est important ma ko teg rek. mooy fi ma ko teg mooy sa sa sa euh, bu fekkente ni ci politique la ñuy wax aussi xam nga politique euh, ay responsabilité daf ci am solo euh, tey jiite woon nga COJER d'habitude daan nañu gis sax. au temps de Abdoulaye Wade wala peut-être d'Abdou Diouf ñi nga xam ni ay ay ay ay ndaw lañu après ñoom la ñuy promouvoir ñu dem comme ministre de la République euh, ñu gis ñeneen ñoo xam ni nekkuñu maire seen seen base politique demeewul noonu ñu nekk ministre euh, loolu amoo ci benn problème. papa amoo ci problème sincèrement. doo ci jékki-jékki nga ni lii daal. Euh, man wax jooju li ma ci xalaat waxoon naa ko et puis foog naa loolu yàgg na sax def na une mhm. donc man li may wax ab ndaw laa boo xamante ne man maa choisir l' alliance pour la république. maa choisir le président Macky Sall comme leader. waaw donc man maa jàpp ne ko aussi ba fi ma ak vision bi nga xamante ne moom la teg pour Sénégal dooy na ma te ñor na ma ma ci ànd ak moom ci principe yooyu noonu. Mhm. léegi nag leneen loo mënti di xalaat aussi que politique la wala keneen mën ko di ko xalaat lii moo waroon am amul. man je pense que stade boobu naaw ne dépassé naa ko. man li ma nekk di wax léegi d' nga ko mais est ce que du problème ci yow. Euh, euh, compétence waaw ci naka. waaw compétence rek parce que xëy na compétence yi bu bu compétence yi bu fekkoonte ni daje na ci yow xëy na président du ñàkk. <laughs> xëy na dañ maa bëgg a ci xëy na dañ maa bëgg a rek mais euh, li ma mën a wax daal. waaw mooy ne que euh, fonction direction général waaw moo gën a métti fonction ministre. parce que c'est le volet technique li nga xamante ne moom la ñuy liggéey di jox ministère yi. donc nekkuma di jaay sama bopp mais man bëgguma sax commenter loolu ba sori ci. waaw mais mais c'est important aussi bëgg naa xam rek ndax problème mu compétence la. li ma mën a wax mooy <laughs> Pape Ngagne yaa ngi may dugal ci loo xam ne bëgguma ci dugg. ndax lan mooy li ma mën a wax mooy ba jàng jotee Thérèse dafa jàng université Cheikh Anta Diop laa. génnee sociologie laa def. def sama master science politique yaa ngi dégg jaar naa assemblée liggéey euh, ñu jóge jóge foofu dem direction général case tout léegi nag bi ki nga xamante ne moom mooy décider lu mu décider man sincèrement Pape man aw ma ci lu ma ci commenter awma ci lu ma ci sori. xam nga li ma gën a neex mais li nga mën a li nga mën a commenter mooy. gis nga fi ay nit yoo xam ni ñii nommé nañ leen par exemple euh, ministre euh, de la jeunesse wala par exemple ministre leneen. mais nga xool sa bopp xool sa sa engagement xool sa compétence mais war nga xool nii ni lii kat. mais léegi bu dee seen wërsëg la nag. d' accord loolu moom amul ñu ci mën wax. waaw ah, bu dee seen wërsëg la amul dara luñ ci mën a wax. bu amul dara man li ma gëm mooy ne man. sama mais man dama jàpp ni rek nomination yi président dina ko teg au moins ci compétence gis ni kat kii dafa gën a compétent keneen. bon loolu xëy na président moom mooy xam liy déterminer vraiment. ses choix d' <laughs> voilà wax nga ko léegi 13. Euh, uh-huh. muy violence yi nga xam ni moom moo am au delà de violence bi nga xam ni noté nañu ko ci Fatick muy sa dëkk di dëkku uh-huh. président euh, de la République euh, ñi ngi gis nag violence yoo xam ci tout tànk yi la. Euh, muy ñi nga xam ni daanaka ñoom yow la ñu leen dénk euh, bu yàggul dégg nga ci benn sëriñu daara bu ñuy wax Mohamed Gueye dégg nga ku ñuy wax itam tubaab boobu ñuy wax Olivier Sylvain mm-hmm. euh, ba tey jël nañu mandat de dépôt ci loolu nga xam ni moom la ñuy def mm-hmm. ndax loolu itam aar bi nga xam ak taxawaay bi gouvernement bi war a taxaw ci tout tànk yi est-ce que bu ñu ko defoon ci encadré leen yu mel nii dina am pour yow Pape situation bi nga tudd dafa nekk loo xamante ne dafa ñaaw ñun ñëpp ñu ko mm-hmm. mu nekk loo xamante ne aussi dafa dafa dafa fréquent léegi ci réew mi et puis ngay gis aussi dafay mel ni daal nit ñi amatuñu benn humanisme benn euh, nu mu tudd sax yërmande et au la même man je que ça me dépasse parce que damay jàpp ni que xëy na ñooñu seen am li def si nekk si ñoom nit loolu lañ génnee pour ñu mën a tiim xale di ko def yenn yi. Euh, mu nekk nag loo xamante ne vraiment bëri na ci biir réew mi comme ni ma ko waxee léegi mais euh, li nga xam ne moom laa ci mën a wax. mooy te dama ko wax fii ci TFM ngir yàlla wa rasulilah. Assemblée nationale dafa voté benn loi. Mm -hmm. criminaliser viol ak pédophilie. Mm -hmm. que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Mhm. man loolu laa nekk li nga xamante ne loolu laay ñaan képp koo xamante ne jàppati nañ la ci façon yooyu na loi bi dal sa kaw amul négocier amul masla parce que nag affaire bi dafa bëgg a jéggi dayo te ku ci nekk danga koy xoolee ni sa doom bi nga xamante ne bu doon yow la avenir xale yi la ñuy yàq mais au-delà de ça sax toute une société la ñuy yàq. mais mais mais man man man man euh, euh, nga baal ma 13. li ngay ñaan loolu lu ñu voté loi la je pense que lu ñu voté ci assemblée nationale la criminaliser loolu nga xam ni wax nga ko muy viol ak pédophilie. Mm-hmm. loolu waxuñu ko jàpp naa ne ñi nga xam ne ñooy attekat yi te ñu teg euh, loi bi ci seen loxo li ci war dinañ ko def. Mm-hmm. yaakaar naa jarul ñaan ak leneen li nga xam ni mooy seen seen warugar ci loolu laa bëgg taxaw ci ndax xale yi càmm gi nga xam ni war na ci ñoom. état bi nga xam ne yor ngeen ko rawatina petite enfance bi ñu la dénk. ndax taxaw nañu ci xool xale yi ba loolu ñu tàbbi euh, loolu dal ci seen kaw bañ a dal ci seen kaw. xam nga tey Pape bu ñu duggee côté petite enfance. Mhm. ñi ngay dégg ñuy wax ne ñëpp dañ leen a sàkku wala dañ leen a def lii doo dégg ne école lañ leen ko defee wala sax pour nga dégg na sax ci benn casetu petit wala benn école maternelle wala feneen foo xamante ne sur structure petite enfance xam nga mhm. loolu déggagoo ko. Mhm. ça veut dire que tey au de la responsabilité. donc petite enfance daf ci boolewul daara yi. non daara yi du benn champ d'action mhm. yi du benn. moo tax ma ne la au-delà de la responsabilité nationale bi nga xam ne moom la état yor mais aussi enseignants yi dafa am benn responsabilité boo xamante ne am nañ ko te xam nañ ko. par exemple Pape boo yóbbee sa doom mu jàngi. ku ko xamul bu buggee dem ci école ba récupérer ko ne ko par exemple papam moo ma yónni pour ma jël si ko du ko bàyyi mu ñibbi te loolu dafa fa bokk ci benn forme de protection bi nga xam ne ñu ngi koy def ci école yi. Mm-hmm. gardien yi nga xam ne ñooy nekk ci école yi mais nu ñuy saytoo xale yi di leen di xool lépp loo xamante ne nekk na ay jafe-jafe ci ñoom ñu koy teel a détecté pour wax ko nit ñi. loolu dafa nekk loo xamante ne moo tax ma ne la côté petite enfance vraiment ñi nga xam ne ñoo nekk ci structure yi muy jàngalekat ak keneen ak keneen ñoom ñëpp ma leen ciy sant bu baax a baax ñu ngi ciy def seen liggéey. Mm-hmm. léegi nag xam nga fan la affaire bi complexé. bu ñu nee petite enfance ñii dañoo am seen doom yóbbu case tout petit ñii am seen doom yóbbu daara ñii am seen doom bàyyi si kër yi ñii am seen doom bàyyi leen sax ñuy taxawaalu ci mbedd bi ñii am seen doom suñuy jaay marché yóbbu leen donc ce qui fait que environnement yi xale yi di évoluer ñoom ñoo am différence yu bëri mm. ce qui fait ku nekk li lay exposé day day day xaw a day xaw a day xaw a day a bëri. léegi mais doom yooyu ak fu ñu mën a nekk itam. seen seen seen protection ci laay ñëw. Ah, seen protection ci loxo état ak a nekk a nekk seen protection ci loxo état la nekk. ci loxo état la nekk mais la protection des enfants man je dis que la responsabilité est partagée et partagée dans le sens où. état am na li nga xam ne ay garde-fou par exemple ministère de la femme may nuyu suñu ministre madame kii Ndeye Saly Diop Dieng am na li ñuy wax Euh, code bu bees bi nga xam ne moom la ñu teg pour la protection des enfants avec une approche holistique approche bi nga xam ne aussi dafa inclusive boole ministère yëpp muy justice di intérieur di ministère de l' éducation nationale ak ñëpp pour ñu xool lool nu ñu koy songee mhm. mais au delà de ça comme li ma wax léegi rek gis nga pap lu état di la xoolal xootal di la protéger sa doom te yow si biir kër gi xooloo fa mu fanaan xooloo fa mu tëdd xooloo ñan lay waxal xooloo ñan lay àndal ba ci tonton yi nga xam dañuy dugg si si biir kër yi sax di uuf xale yi di leen di fob di leen di raay nga foog ne mais lépp day xew ci biir réew mi léegi. Mm-hmm. donc moo tax ma ne la protection bi état na gën a góor góorlu def lu mu mën parce que nag question bi métti na. ñun aussi au niveau des structures travail de sensibilisation bu ñu gën a mën renforcer ak alerter les enseignants les éducateurs ñu gën ko def mais tamit parents yi nañ gën a xof parce que tey jii nii même bu fekkee da nga xëy liggéey yow xamoo ñiy ñëw sa biir kër sa ginnaaw xale bi dem diggante kër gi ak boutique gi lu ne mën na fi xew. Mhm. donc moo tax ma ne la dafa compliqué. mais ci lépp lépp mooy moo tax ma njëkkee léegi ci daan bi. Mhm. ku ko def boo xamee ne boo ko defee ñu daan la daan goo xamante ni illaa yow mi diini say mbokk dootuñu la gis dootoo ko xalaat a def. parce que nag il faut nit ñi def euh, approche yi nga xamante ne. il faut mhm. ñu durcir les peines. parce que aussi maslaa gi dafa bëri beneen bi may daanelee. da ngay gis ci biir kër mbir xew ñu koy nëpp nëppal naan nijaay ko def wala tonton moo ko def wala am mag a ko def parce que lan y a une réalité sociologique qui est il faut encadrer il faut ñu nëbb bu ñu tas mbokk yi mais au nom de quoi loolu aussi il faut ñi ñi wax ci nëpp nëppal boobu euh, yaakaar naa ñëpp am nañ ci responsabilité euh, parce que ni ñu jàppee ni noonu la famille di nëpp nëppale noonu lañu jàppee nitam itam justice daf koy nëpp nëppale Euh, parce que dañu joxe exemple rek muy exemple bi nga xam ni euh, xew na ci ñi yor jakartaa nekk Thiès ñi yor Jakarta nekk Fatick ak ñeneen mm. mais cas yi nga xam ne ñoo ci nekk cas yi gën a récent mm. euh, te ñu mën ci teg loxo muy bi nga xam ni xewoon na Thiès mm. ba tey amul suite benn benn policier la ñu wax ni moom moo rey benn man ba léegi loolu mujjul fenn leneen li nga xam ne tam mujjul fenn muy li nga xam ni wax nga ko te mu xew Fatick benn jakartaman la itam kuy dawal jakarta ak policier loolu itam ba bakkan faatu ci ndax loolu tam dafa laajul ndax loolu dafa laajul leeraange boo xam ni. mais mais Pape euh, xam nga man euh, dossier bu ma comprendre circonstances yi xëy na duma ci mën a dugg euh, pour le cas de Thiès mujju na fenn mujjul fenn man bu Fatick mënu wax ni mujjul fenn parce que xale bi yar na ko yàlla yërëm je pense que tey lañ ko. denc donc ce qui fait que enquête dina dem lépp lu ci nekk aussi dinañ xam. yan circonstances. la la la mais circonstances yi kay dégg nga ko. Euh, circonstances yi lu ñu wax. autopsie bi que mort naturelle la. non wax bala ñuy wax autopsie nañu wax ci circonstances yi ba pare. waaw circonstances yi. <laughs> mais xam nga li ma la wax beneen affaire la. waaw mais même autopsie bu fekkente ne beneen affaire la man li may wax chaque jour rek mooy nekk bu fekkente ne dafa am accrochage bu am je ne suis pas là pour défendre la police. damay wax rek ci li nga xamante ne man sama xel ci loolu la ma jox mhm. bu fekkente ne accrochage dafa am je pense que tey balaa justice du def quoi que ce day jël le dossier en main xam lan moo xew moo tax ma ne la bu ñu waxagum nekk lu ñu nëpp nëppal la denc par xamaguñu la suite. Mm-hmm. waaw waaw non mais bavure yooyu ñuy gis rek. xam nga bavure policière yooyu nga xam ni ñaare dafay jur bakkan buy rot. Mm-hmm. loolu itam la ñuy wax ni est-ce que jarul ñu encadré ko jarul itam euh, ñu ñu ñu di ko topp di ko xool ba xam fan lay mujj. mu bañ a nekk loo xam ne rek dafay am après ñu ne voilà autopsie bi lii la wax ñu fàtte ko gis nañ ko ci cas yu bari. waaw bavure yi man je pense que euh, balaa maa ñëw ci bavure yi dafa am lu ko jiitu. Mhm. Euh, Sénégal dafa nekk réew moo xamante ne dafa am ay normes ci secteur boo mënti di dem foog naa am na réglementation bu ci état teg ci loolu aussi tey jii nii. man damay gis ay exemple yoo xamante ne par exemple bu ñu arrêté benn jakarta parce que solul casque xëy na dina mere policier bi loolu réglementation bu ñu ko tegee c' est pour encadrer ki nga xamante ne wala euh, assurer même sécurité. d' accord man les mesures préventives man léegi nag yow ci lii ngay wax. nii waaw ay côté ba ba bavure yeeg yooyu yëpp. dama jàpp fekk ay fekk ay xale fi ñu toog jël leen yóbbu leen booru géej dóor leen ba kenn dee ci loolu mooy wax ji. waaw mais ak lépp lu mu mënta demee Pape nañu xaar nañ xaar ba xam suite bi lan lay joxe. parce que man mënuma jàpp ne que fii. que gëm naa ne que lu ñuy jël teg ko de côté la man dama jàpp ne que rek justice bu jëlee. bu ñu sukkandikoo ci autopsie bu ñu sukkandikoo ci bu ñu bi foofu lay mujj. waaw mais man bu ñu sukkandikoo ci autopsie bi lay mujj la place de la justice. loolu dëgg la d'autant plus que c'est un dossier que je ne maîtrise pas du tout lépp lu ma ci xam ci presse bi laa ko liiree. Mhm. waaye tamit muy lu ma métti torop. Mhm. ndax damaa dëkk Fatick dëkk quartier HLM presque yaroo fa defee fa lépp mbuubaa nekk suñu côté. Mhm. xale yëpp ñu xam leen ñu nekk ñoo xam ne ay jàmbaar lañu liggéey lañu xam teral seen waajur yi. Mhm. sincèrement moo tax ma njëkkee ci jaale leen. Mhm. d'accord euh, dañuy wax nag bi ngay bi ñuy wax léegi ci violence bi ak xale yi jàpp nga ne responsabilité yi parent yi am nañu ci euh, wàll waaye itam loolu nga xam ni dafay faral di dal ñii di yëngu ci wàllu Jakarta ak alkaati yi est-ce que jàppaloo ni itam état am na ci wàll parce que bu ñu demee ba liggéey ñëpp jàpp ndawal Jakarta la c'est-à-dire bi ñu doon xaar gisuñu ko notamment foofu ci Fatick. amul lu lu ñu mën a jàpp ni xale yi foofu la ñu mën a liggéeyee feneen ak feneen naka noonu est-ce que jàppaloo ni loolu itam euh, maanaam euh, manquement la euh, ci seen régime ak yaakaar boo xam ni xëy na nit ñi amoon nañ ko mu tas ci wàllu emploi gis question emploi des jeunes bu ñu mhm. koy wax il faut toujours ñu am une approche globale c'est pas parce que le gouvernement n'a pas fait des efforts c'est pas parce que le gouvernement n'a pas une ambition pour vraiment développer ce secteur-là. Mhm. ñoom ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi def également seen kéemtalaay kàttan mais dafa fekk ne que soo ko jëlee même au niveau mondial c'est des questions yu nga xamante ne toujours day tegu sur la table des États c'est mhm. partout dans le monde. Mhm. loolu nag par exemple boo ñëwee en Afrique continent la ba nga xamante ne presque plus de 50 pour cent de sa population et les jeunes donc li muy laaj mooy. ñu réadapter ay mécanismes yoo xamante ne ñoom ñoo correspondre à la réalité euh, nu mu tudd sax démographique euh, li nga xamante ne moom moo nekk ci ci ci adduna bi ci Afrique muy ci Sénégal. léegi nag leneen li nga xamante ne moo ci nekk ñu war ko leeral parce que chaque fois bu ñu waxee affaire emploi des jeunes xëy na ñun ñu dañuy foog nekk emploi des jeunes mooy ki nga xamante ne fonction publique recruté na la wala yaa ngi ci privé bi am sa bureau am sa autre man ñooñu loolu ñuy def seen jakarta yooyu du leen ko xeebal parce que tey. waa Kaolack ñu ngi may déglu am na ay pas yoo xamante ne ci ci seen taxi yooyu ñu njëkkee ci la ñu amee ay taxi taxi ba am ci seen i njaboot am ci seeni kër di ci dund ba doon fi ay nit yoo xam ne tey am nañu tur am na ñeneen nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi xëy na ñu ngi leen di. tudd ci lu dañu amuloon ci lu ñu jàpp nag de moo tax ñu jàpp ci loolu ba loolu. aussi seen wërsëg ubbeeku ci loolu la rek mais mais mais mais yuret amul. Mhm. tëba tëb na yuret amul lépp loo gis dafa am fu muy tàmbalee. moo tax man képp koo xamante ne yaa ngi jàpp ci as tuut lu ndaw loo xamante ne sax même bu dee ab 2000 wala 5000 francs par par jour de la koy jural man dama la ciy naw respecté la ci. léegi li nga xamante ne moom moo mun a nekk muy secteur bu munti amati léegi ci réew mi te je pense que sax gouvernement bi mu ngi koy def. mooy nañu jéem a encadrer noonu bu fekkente ne mun nañ leen impulser dimbali leen jàppale leen ba ñu valoriser métier boobu noonu parce que bu ñu jàpp ne que euh, dawal Jakarta valoriser valoriser dawal dawal dawal Jakarta mais bien sûr tey boo demee Chine pour éviter ay embouteillage mhm. ah mais da ngay gis ay sociétés yoo xamante ne ay vélo la ñuy rangale yow da ngay ñëw rek fay ak benn système de payment boo xam ne kii velo bi ubbeeku nga jël dem doxi say soxla ñëw teg. mais loolu en général ci ci capitale yi lay nekk wala ci grande ville yi. mais mais ndem foofu la am mais doomu wax ni ma ci ci àll bi booru xam nga. mais ndem foofu la am. te vélo laa la wax ndem foofu la am. kon tey man gisuma vraiment euh, inconvénient xale yor xaalisam dem jënd motoom di ci daan dooleem. def ko métier def ko métier. non mais euh, Jakarta boobu mooy indi leneen. mooy andi leneen Pape mais mais leneen loolu. leneen loolu aussi sa à li ñu bëgg a wax mooy. sa à dire treize. Uh-huh. aussi du da ngay naan ay jakartaa bi mooy indi leneen ak loolu état la ñuy wax. sa à dire état dafa dafa dafa waxoon ni euh, bu ma faloo cent mille emplois dinaa ko jox xale yi sa à dire loolu. buñ ko waxee te gisuñu ko ba ñuy rey seen bopp ci jakarta yi ñii di rey seen bopp ci gaal yi mais loolu foo ñu taxaw xool ko. loolu moo tax ma wax la ko xam nga Pape man du ma nangu nga nga nga jàpp ne état deful. lu mu waroon def wala deful sax dara. mais fay emploi des boo xoolee fay rek xam ne defu mais fay yi am Sénégal ñoo am feneen ak feneen ak feneen. mais la ñuy wax dama ne la boo xamante ne jël na trente milliards. Mhm. jagle ko ndaw ñi ak ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi. barke Dembo Ndiaye démb lax je pense man j'ai suivi le DG de l'ANPEJ ay équipements yi nga xamante ne c'est dédié aux jeunes ak yeneen ak yeneen FONGIP fii la la fekk ah. ak yeneen accompagnement yoo xam ñu ngi koy jox ndaw ñi di leen di ci jàppale di leen di encadrer ministère de la formation professionnelle lu ñuy def ci ndaw ñi bu ko xeeb avec les centres de formation. non ko ministère de l'enseignement supérieur luñ fi def. dama gisul dama ko gisul dama gisul ñu fi def. mais mais man ma ko. mais dama ko gisul man li may gis mooy ay ndaw yoo xam ni. li ma la li ma des faits. mais nangu nga ne quand même DER mu ngi. financé ay non non ay slogan la nga may man loolu laay dégg quoi ay slogan laay dégg man ay actes ak ma la wax nii du slogan. Mhm. pas mal de jeunes ñoo xamante ne jot nañu ay financement état liggéey am ci ay résultats. man c'est vrai que nag ñëpp mënuñoo daj. mais li ma la mën a wax mooy ne que tey jii nii. gouvernement bi gis nga ko Fatick gis nga ko jaaraax bu baax jaaraax je peux vous donner ma leen di gërëm au passage. ñi nga xam ne ñoom ñooy les vulganisateurs xam nga léegi da nga wax affaire affaire affaire nu mu tudd sax Jakarta tey boo duggee biir Dakar mën naa la ne vulganisateur yu bëri yi ngay gis. ils sont originaires de Diarré wala ci environnement yi ils se sont constitués en GIE DER financé leen ñu ngi liggéey seen liggéey bu am solo fay nañ ba ñu ngir dugalaat beneen reket tey conteneur boo leen andi ñu jënd ko yor seen xaalis boo demee dëkk ba tey bâtiment bu rafet boo fa gis ñoom ñoo ko tabaxal seen waajur yi man je pense que moo tax ma ne la bu ñu xeebal kenn métier weer bu dee ñooy joxe dépense yi. c'est que dama jàpp ne que rek nañu comprendre ne que ñëpp mënuñoo dem université ñëpp mënuñoo dem France ñëpp mënuñoo dem Europe ñëpp mënuñoo dem fonction publique mais ku nekk ak sa catégorie socio-professionnelle am na ci loo xam war nañoo a formation ñu bari war nañoo a am formation mais moo tax état à travers euh, le 3FPT taxawal fonds boobu noonu pour ñu gën a appuyer li nga xamante ne moom mooy formation ndaw ñi pour ñu am au moins la qualification parce que tey. mais ci lu concret parce que ay FPT ay FONGIP ay ANPEJ c'est-à-dire. slogan yi dafa bëri li ma la wax nii c'est pas des slogans parce que structure yi noonu la ñu tudd am ay contenu am ay mission di ko dérouler mu am ay cibles yoo xamante ne ñoo ci nekk nekk ay bénéficiaires. loolu nag Pape Ngagne xanaa war nga koo mën a comprendre. am ne bala ma koy comprendre gis ko maa ngi ci dëkk bi yaa ngi ci dëkk bi. ah man de maa ngi ci dëkk bi ah. fu nekk laay dugg fu nekk laay dem ci Sénégal et je sais que y des jeunes qui sont wala dafa féete boor ci APR féetewul beer. wala dafa féete boor foote féetewul boor pas du tout. non bu féetewutoon boor. <laughs> kon xanaa dina. Euh, investissement yi état def. waaw en matière de jeunesse. je peux dire que tey gisaguma ku ko def. Mhm. parce que tey boo jëlee li dugg ci enseignement supérieur. carte universitaire bi nuñ ko élargiré ak li nga xamante ne moo dem ci formation professionnel li nga xam moo dem en matière de financement des jeunes li nga xamante ne également moo dem par exemple ci DAC yi ak leneen ak leneen man je une fois il des efforts qui ont été faits nag comme li ñuy wax daanu dajul suuf nañu góorgóorluwaat ñun ñëpp rek te nekk li nga yor nga jàpp ko. d'accord liggéey état bu la ci fekkee baax na te gëm naa ne que ñu ci bëri am nañu yéene am nañu jom am na ñu pasteef parce que nag Sénégal c'est pas une jeunesse boo xam ne dañoo dañoo yaafus ay liggéeykat lañu. bu dee xale yi ñu ngiy jàng am ay diplôme et mais nag il faut ñu xam ne que nag lii xew Sénégal boo demee ci beneen dëkk amaan amaana sax ci Afrique la fay am moo moo gën a doy waar. donc euh, ñun fu ne la ñuy dem. waaw waaw donc moo tax ma ne la nag. la fay am moo gën a doy waar yow loolu nga jàpp. <laughs> Euh, yow loolu loolu loolu nga jàpp mais man jàpp ma ni par exemple lii xew fii ba bakkan di ci rot te dara du ci xew lu dul ñoo xam ne dañu yor seen jakarta di dajeek ay policiers peut-être ci ay contrôle wala leneen coow di ci am ba bakkan di ci man loolu boo nee lii xew feneen moo gën a doy waar xew fii man loolu mun ma ko encore une fois man dama lay wax ni que lii xew ba ay bakkan di ci daan. communication dafa doy waar. man Fatick laa dëkk. Mhm. loolu man du loo xamante ne vraiment. ànd naa ci. Ah. man loolu moo tax ma ne dafa nekk loo xamante ne lu métti la mais ci yan circonstances la amee. xaw ma ko. non bo non mais leneen li ma la ci da nga ciy ànd ak ñoom jusqu'au bout. mais da nga ciy ànd ak ñoom da nga ciy ànd ak ñoom parce que ànd ci ak ñoom. mooy circonstance yi dara umpu la ci. mais ça ne veut pas dire que circonstance yi dara umpu la ci te nanguwuloo taxaw wax ci circonstance yooyu. mais ça ne veut pas dire que état. deful lu mu war a def. non non non gën a àndal ni ñoom waa Fatick. a àndal. mais <laughs> parce que Sénégal laa dëkk di gis li nekk li ñu nekk di def. xam nga nihilisme aussi baaxul. ok alors euh, madame le maire ñu gis nag nii seen président temps yi ci dafay dafay dafay def le buzz mais lu ñuy wax bad buzz sax la euh, bu ñu bu ñu bu ñu waxee ci lu aju ci mbiru euh, mbiru étudiants yi nga xam ni ñoo nekk euh, Wuhan ci Chine mm-hmm. xam nga ni def na ci benn déclaration boo xam ni ba léegi mi ngi nekk toole mm-hmm. boo ñëwee ci Cour des comptes mm-hmm. li nga xam ni itam wax na ko muy après les rapports nañu def benn commission loolu itam xam nga ni créé na buzz boo xam ni coow la loo xam ni du buzz boo xam ni mën nañu jàpp ne sax bu bu bu positif la mais bu ñu ñëwee njëkk ci li nga xam ni wax na ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk Chine doon ay étudiants foofu mm. euh, doon ay sénégalais mm. nekk ci ay xat-xat nekk ci mm. difficulté dégg seen président de la république mu wax ni amul pexe pour indi leen ak margale jafe-jafe yi nekk foofu ndax jàpp nga ni forme communication boobu euh, lu lu lu sagal président la wala lu lu rafet la mu génne ko ci gémmiñam ci ay doomu sénégalais yu nekk ci ay ay difficulté merci beaucoup Pape dama bëgg a def d'abord benn historique bu ndaw rek. Mhm. Euh, parce que ni ñuy waxee situation coronavirus bi. Mhm. Euh, c'est comme si état jëlul ay dispositions état jëlul ay matuwaay euh, état deful benn effort. Mhm. et je pense que te jii nii ñi koy wax yépp parce que dañuy suivre actualité bi. Euh, la plupart ñoom xëy na gis naa ku ne nañu cotiser dem jëli leen. gis naa ñu proposer ay yeneen solution mais je pense que ñooñu li leen gën a yitteel mooy benn genre activisme politique faire du populisme pour euh, yëngal benn dossier accroché wu ci joxe benn effet négatif. non wala humanisme wala yërma wala wala wala solidarité. non bu doon solidarité. la proposition. wala fraternité no bu doon solidarité. waaw proposition bi leneen lay doon mais man gëw ma proposition bi dina doon nañu cotiser parce que aujourd'hui c'est pas parce que état amul xaalis c'est c'est loin léegi leneen li nga xam ne bëgg naa kaa fàttali Pape Ebola fii la amoon mhm. Guinée gii jóge ñu ba dee état jël ay motuwaayam ministère de la santé ay responsabilités def lépp ba noonu la ñuy sunu borom muccalee ba loolu. mais li nga ma wax bi exemple nañu wax non non je vous nañu wax. parce man su may développé dafa am nag fu may jógee. ok soog a ñëw ci li nga xam moom nga ma laaj. parce que mhm. il faut ñu def comparaison boobu noonu. léegi nag bu fekkente ne dañu ñëw ci kaaw coronavirus. Mhm. Ebola am fi jàll. gouvernement bi jël ay motuwaayam sëkk. corona amul Sénégal jegewul benn pays boo xamante ne mu ngi ci frontière bi. li nga xam ne moo am mooy dafa am ci dëkk boo xamante ne am nañ foofu ay étudiants yu fa nekk étudiants yooyu ci communication bi ma dégg gouvernement bi def ko ñaari ministères yi def ko mooy ba fi may wax ak yow ni amul benn cas sénégalais boo xamante ne am na virus bi donc tey gouvernement bu nee ñoom wu ñu wala nanguwuñu solution ñu rapatrier ñooñu je pense que c'est pas parce que dañu désolidariser ak ñoom c'est pas parce que dañu amul yërmande ci ñooñu mais c'est pas parce que sax nag ah nguur gi dafa amul ay moyens pour def ko parce que lan kon mais c'est parce que tout simplement il faut ñu xam benn affaire euh, Pape tey ñaata dëkk ñoo am seen représentant yuan Éthiopie ñoo ëpp foofu ay étudiants ci ville boobu noonu te pourtant jëluñu seen seen seen seen seen étudiants ak yeneen dëkk yi nga xamante ne ñoo nekk ci sous région bi. madame ñii seen ay Sénégal seen ay étudiants dañu bëgg a ñëw. seen ay parents de point de presse wax nañu leen dimbali pour seen ay doom ñëw. mais seen i parents. waaw seen i parents ñoom c' est très normal parce que ku nekk xam nga ne doom dafa sax ci xol. soo déggee ne am na ay problème li ngay bëgg mooy sa doom jege si la loolu c' est très normal et loolu man damay vraiment wax ne que c' est normal man d' accord naa ci loolu mais au même moment aussi est ce que état. par compte de paramètres yi nga xam ne ñoo nekk yépp ci problématique bi est-ce que war na mën a jàpp ne que parce que seen parents yi wax nañ li que dañ leen a war a mën a rapatrier. Mhm. moo wax benn affaire est-ce que ces jeunes là bu ñu leen encadrer accompagner leen fa ñu nekk est-ce que gënuñu fa sax nekk en sécurité ko ñu génn yoon ah, dugg ci avion yi. ñëw ba ci Sénégal mais non madame léegi beneen affaire madame nit ki aussi mënoo ko gën a xam boppam. ñi nga xam ne ñi ngi wax ak seen njaboot bëgg seen njaboot ñëw non cest à li ma bëgg xam mooy ay nit dañu taxaw di def seen solidarité pour def seen ay collecte de fonds yow nga ni loolu loolu loolu du solution bi yow bu yow indiwuloo solution keneen bëgg indi solution état chinois du wax ak ñooñu état chinois du wax ak ñooñu état chinois buy wax état Sénégal lay waxal Ah, moo tax ma ne la ñooñu proposition ba ñu def du sax pour solution état chinois buy waxal état Sénégal lay waxal. lii du problème mu état la madame. lii problème mu ay nit yoo xam ni la non non non. mais pas lii non non naka la nekkee naka la nekkee problème état la mais naka explique moi. état ak état non pas du tout. mais nu ah, ay nit la yoo xam ne ñu ngi nekk quelque part. nekk ay sénégalais mais xam ne que situation bii nii benn état mu benn benn benn nu mu tudd sax benn personne individu mënul dugg biir yoon jël fa sa doom wala jël fa sa jarbaat yóbbu ko. te état defu ci wàllam mënul nekk c'est des rapports diplomatiques il faut ñu comprendre ko mais encore une fois nañu xam ne que tey président Macky Sall bu waxee loolu ça ne veut pas dire que moom amul yërmande ci ñooñu il ne se soucie pas de ces gens là. d' mais mais d' accord ah, mais jàpp woon ni am na. mais accompagnement bi nécessaire ambassade bi nga xam ne mu nga fa mais mu ngi def liggéey bi nga xamante ne moo ci war. Euh. tey ma jox la benn exemple Japon lan moo fa am. bateau boo xamante ne mu ngi ñu bloqué ci biir géej bi plus de mille quelque quelques personnes mënuñ leen a débarqué est-ce que loolu ñaanal nañ ko suñu ndaw ñooñu nga xam ne ëllëg ñaanal nañ leen lii jàll ba ñoom seen bopp ñu am yeneen responsabilité yoo xam ne dinañ ñëw ci réew mi di servir réew mi mhm. parce que aussi il faut ñu relativiser c'est pas parce qu'ils sont là-bas que affaire yi dina leen jàpp nañ leen ñaanal affaire bi euh, jeex bàyyi leen fa ma dem le maire mais bëgguma ñu jàpp ne que waaw état bi dafa lâché ay doomam c'est pas mais y a des paramètres yoo xamante ne yu bëri kenn mënu ko wax. encore une fois li opposition di wax. ay nañ cotiser ak ay nañ def leneen c'est du populisme. activisme politique non man non non non man man dégguma man dégguma opposition bu wax man Bougane la Bougane Gueye Dany la mais mais man moom laa dégg non mais attends ban boo ma waxee une boo ma waxee opposition nga bëgg a généraliser alors que dama dégg par exemple moom mu wax ko te c'est pas la première fois mu teg acte yu mel noonu mu nekk ay acte ay acte de solidarité acte de solidarité man dama jàpp ne que Bougane politique lay def hmm. man loolu laa jàpp ba mu toogee politiqueul toog ci des médias boobu kenn mosu ko dégg ci euh, yu mel nii Bougane politique lay def. Iran Ndaw léegi nag mais Iran Ndaw xalaatam la wax Iran deful politique parce que xamuma ko ci benn parti politique. mais Bougane dama ko xam ci parti politique. ok d'accord donc li nga xamante ne moom moo am daal mooy encore une fois nañu xam ne que le président de la République est le père de la nation. Ah. il est pour tout le monde. le père de la nation discours am loolu la war a nekk ci sa nation. say doom ñu nekk ci ay ay ay jaaxle. mooy mënuma ko mais bàyyiwu leen le Sénégal a sa représentation diplomatique à Pékin lép lu ci war mu ngi koy def. je pense que le ministère des affaires étrangères est en contact avec les familles. dafa fekk ne état lépp lu muy def du lépp la mën a saam ci mbedd mi di ko wax. mais président Macky Sall bu ñoon kenn du am difficulté fa mu nekk. rawatina koo xam ne danga dem jàngi wuti xam-xam. nañ leen ñaanal yàlla suñu borom yàlla aar leen. loolu lay wax ji. waaw ci leneen itam euh, mu aju ci wàllu Cour de comptes. Mhm. Euh, dañu jot rapport yi d'abord rapport yi yéex. Euh, depuis 2014 amul benn rapport boo xam ni Cour des comptes publié na ko loolu nekkoon lu jaaxal ñu bari. Hmm. Euh, te bonne gouvernance nekkoon ci li nga xam ni tam ay ay yéene président de la République woon la woon pour que hmm. mu mu doxale ko. Hmm. Euh, yéexaay boobu nga xam ni yéex na. ci Cour des comptes ak bi mu génnee itam ñi nga xam ne yëpp ay kilifa ñu bari ñu épinglé leen ci président jàpp ni commission moom moo koy réglé ba mu wax ko. ndax jàpp nga ni loolu moom mooy transparence ndax jàpp nga ni itam loolu mooy bonne gouvernance ndax loolu jàpp nga ni mooy jeune ne protégerai personne euh, comme na mu ko waxee woon. Pape xam nga euh, à chaque fois situation bu amee euh, coow li day bëri et malheureusement ñi nga xam ne ñoom ñooy am vrai information yi xëy na du ñuy mën a taxaw fépp wax ak ñëpp mais. ñëpp xam nañ ne que wala ñu bëri wala ku nekk euh, ci ci ci liggéeyu cour des comptes ngay magistrat wala jege corps bi sax war nga mën a xam ne que c'est pas parce que gis nañu rapport rek que dañu incriminer ay nit. parce que côté boobu dama ci bëgg a taxaw tey bu cour des comptes joxee rapport am na niveau de sanction yi nga xamante ne moom lay proposé mm-hmm. su fekkente ne dafa am ay poursuites yu nga xamante ne c'est mhm. loolu day fekk structure bi wala responsable bi ñu dénk structure bi def ay délits yu nga xamante ne loolu ministère de la justice day obligé euh, cour des comptes day obligé saisir ministère de la justice bu boobaa ñu def seen liggéey beneen cas bi mooy bu fekkente ne erreur de gestion am na parce que nag kenn motul Mm-hmm. kenn mënu la ne tey jii nii def naa une gestion à cent pour cent parfaite mm-hmm. erreur de gestion lan la mais nit mën nga def ay erreur yi nga xamante ne du xaalis boo luubal mais à travers la gestion par exemple TVA boo war a génnee nga yokk ko ci d'accord ñu ne la da nga am ay dépassement euh, voilà léegi monsieur le maire loolu lan moo ci indi commission lan moo ci indi commission non damay ñëw dinaa ñëw ci commission bi bu fekkente ne loolu la dañ lay naan juste c'est des sanctions pécuniaires nga dem remboursé ma bëgg a wax ne ko aussi beneen affaire parce que loolu il faut mu leer cour des ku ko dégg léegi sax sa fit day dem alors que cour des comptes dafa am utilité bu mu amal administration. loolu kay du léegi. non non non loolu kay cour des ku ko dégg léegi ay ree la lay def. cour dégg léegi ay ree la pas daf lay tiital aussi. madame le maire cour des comptes ko dégg léegi non dafa tul tiitalatul la. gis nga cour des comptes. non tiitalatul kenn dafa am parce que xam nañ ni du mujj fenn. waaw <laughs> donc loolu mënu tiital kenn dinaa ci loolu. mais dama la bëgg a wax nga dégg ci un ministre de la république bu ñu dem di ko contrôler mu dàq leen ci biti accuser leen de. Euh, de de de de corrompu. mais loolu kan ñëw ci loolu loolu kan la mën a tiitale ci dama la bëgg a wax cour des comptes. waaw njëriñ gu mu amal administration bi. cour des comptes day former ñun ñu ñëpp des fois dañuy jot ay courrier yoo xam ne on demande en nos comptables ñu ñëw renforcer seen capacité. cour de comptes day encadrer day accompagner structures yi day joxe ay conseils ay recommandations. ñu war leen Ah? pas bañ leen découragé ñu war leen encouragé war leen encouragé boo defee ay erreur seen tutelle war leen encouragé ci seen liggéey léegi su fekkente ne yow da nga jàpp ne que euh, par exemple dafa am ay erreur yi nga xam ne président da koo nëpp nëppal man gisuma lool président Macky ba mu ñëwee dispositif bu mu fi teg of nag yëkkatiwaat crédit yi ak yeneen ak yeneen pour contrôle loolu gisaguma ko état xaw ma régime boo xam ne def na ko fi léegi nag bu fekkente ne dafa am ñoo xam ne parce que ku nekk tamit tu as une responsabilité personnelle dans l'affaire bu fekkee ne dafa am ñoo xamante ne xëy nañ am na benn comportement boo xamante ne waruñ ko woon am ça mhm. man je suis en phase avec toi d'accord ma ci mais li ma la mën a wax mooy encore une fois président Macky Sall couvrirul kenn il l'a toujours di et je pense qu'il est toujours constant dans ses propos. mais ci mais xam nga xam nga par exemple ci ci rapport yi ci bari ay recommandations. ouverture yoo xam ne dañu wax information judiciaire mais yan façon recommandation la bépp bu ci am information judiciaire mais xaaral ba xam ndax information judiciaire du ci am bu fekkente dañu ne par exemple ñii lii ak lii am na ci na na na comptable bi ñëw remboursé comptable bi dina dem remboursé bu fekkente aussi dafa demande structure ñu ngeen ko encadrer accompagner waat comme ñu def ko mais le fait que ñu bëgg a ne que mal gouvernance nangam sangam je pense que loolu aussi il faut ñu relativiser ko. mais li nga dégg ci rapport yi bu dul mal gouvernance li nga si dégg. mais Pape wax naa la léegi nee naa la xëy na am na ñu def lu rëy. Mhm. am na ñu ñu tudd sax te amaana la ñu def ak nañ ko waxee sax demeewul noonu parce que nee naa la gestion amul fu Cour des comptes di jaar ba ñu ne la cent pour cent am nga 10 sur 10. Mhm. loolu mënul nekk maintenant ki nga xamante ne nag le profane bi koy liir xamul les tenants et les aboutissants. xamul le soubassement xamul texte yi xamul règlement xamul procédure mais mën na jàpp ne que ah xaalis bi dañ ko détourné alors que c'est pas de l'argent détourné moo tax ma ne la Cour des comptes approche bu mu am souvent di encadre structure di renforcer capacité yenn yenn yenn yenn agents yi loolu def ci baax mais de façon générale bu mu tax nit ñi am perception que tey jii dafa am ñoo xamante ne dañu luubal xaalis ñu protéger leen loolu amu fi président Macky Sall protégé wul kenn kañ la ko kii kan kan kañ la ñu publier kii bi du avant-hier euh, semaine passée. kañ lañ ko waroon publier moom teg na benn commission. kañ lañu ko waroon publier. kañ lañ ko waroon publier ñoom jox nañu explication yi tax ñu xaar ba trois ans soog ko publier man ci mhm. loolu laa mën a yem mhm. mais li ma jàpp mooy encore une fois euh, rapport Cour des comptes du tribunal. Mhm. rapport Cour des comptes du tribunal te mënul nekk tribunal. maintenant s'il y a des éléments yoo xam ne ci biir dafa war a tax tribunal dugg ci ministère de la justice dugg ci loolu aussi na yoon def liggéeyam. d'accord mais il faut ñi ñi xam ne que pas parce que rapport am na rek ki est di non c'est pas comme ça. Mm-hmm. Ah, euh, président waxaat na ci wàllu góor jigéen ak euh, lu jëm ci lu xeetoo ak moom dégg li nga xam ni wax na ko ak premier ministre bu bu Canada bi. Euh, ni mu ko waxee man sax ci ci olof bi. la gën a leer ci man que ci français bi dafa mel ni li mu wax ci français euh, xëy na ma ba wute ci xalaat ak ñeneen. mais ñu ci mën a wax daal assumé na ko xamal na ko ni daal démocratie la mais ñun bokkuñu ak yenn culture bokkuñu lu ñuy euh, lu ñuy def euh, ndax yaakaar nga ni loolu itam. du nuroo ak li nga xam ni moom la moom la waxoon ak président États-Unis ni ko suñu société pareegul xam nga loo xam ne donc da ci war a catégoriquement je pense que warul mën a am ay ay alibi lii ci démocratie la ñu nekk wala société bu pareegul est-ce que yaakaaruloo ne discours bi mënoon na nekk lu gën a leer. mais mais mais mais mais mais Pape xam nga président c'est pas la première fois ñu koy poser question. Mhm. ci lu jëm ci loolu. te il a toujours constant ci ay réponses xëy na nag ku mu neex. Mhm. nga gis ci leneen. waaw mais li ñu dañ ko mais man de li ma ciy déglu. société sénégalaise moo pareegul. loolu la ah, waxoon. parce euh, mais mais Pape looloo am société ba nga xamante ne plus de quatre-vingt-dix pour cent ay jullit lañu cinq pour cent ay catholique lañu ah te amul benn diine boo xamante ne ci ñaari diine yi seq Sénégal loolu nekk na seen yëf mais loolu mënu fi am te président loolu la wax. Mhm. léegi nag dafa am lu am fii lañ fi wax référendum. Mhm. luñ ñu fi waxul. dafa bëgg a jàllale lii dafa bëgg a jàllale lii. parce que nouveau droit moo taxoon. parce que mais attends est-ce que loolu am na après loolu amul donc bu fekkente ne nag euh, tubaab yi dañoo ñëw ba suñu réew di ko laaj ci loolu moom mu wax ko réyalité bi fi nekk ak position bi ci nekk. man je pense nouveau que droit moo jaaxaloon nit ñi. Sénégal dañoo nouveau droit bi ñu dugaloon yaa ko wax léegi ci référendum bi. loolu la nit ñi mënul comprendre. mais mais loolu est-ce que tax na mu am. parce que nuñ ko doon waxee ci référendum bi c'est comme si buñ ko wote woon rek. après ñu appliqué ko te c'était pas le cas du sax loo xam dafa figurer ci biir bañ koy wote mhm. donc président lu mu tontu tey premier ministre canadien bi man dama jàpp ni kenn amul lu mu ci wax dafa leer nañ dañoo nekk dëkk boo xamante ne ay jullit lañu ay catholique lañu suñu réalité socio-culturelle mayuñu loolu di fi xew mhm. loi bi waxul loolu loolu kay leer na mhm. donc man de gisuma beneen compréhension man boobu li ma déglu lii laa dégg te jàpp naa ne que Sénégal loolu lañ doon xaar ci moom pour mu tontu leen loolu. waaw mën nga ko déggee noonu mais keneen itam mën na dégg ni euh, tontu bu bu bu bu ñu rafetal la rek ak tontu la boo xam ni itam mën na indi ëllëg. leneen loo xam ni. Euh, kenn mënu ko weddi gis nga tontu bu ñu rafetal moom tontu moom dama jàpp ne tontu la man j'ai très bien écouté le président lu mu wax. tey amul kenn koo xam ne mën nga jàpp ni que war nga di xel ñaar xanaa kay xëy na lu ñuy wax ku sa wujj sa sëlëm moom doo set amaan na nag ñu bokk ci opposition bi dinañ ak ah, kii def ñuy bëlëfe mais daf ñuy bëlëfee ak bëlëfe wuñu man dama jàpp ne que lu mu wax loolooy réalité Sénégal. d' accord te euh, je pense que loolu lañ doon xaar si moom. d' accord ba tey ci wàllu bitim réew dama gis euh, ci émission bi nga xam Babacar Fall def na ko ci grand jury. Mhm. ak ambassadeur bu France euh, mu wax lu jëm ci wàllu autoroute bi wax itam lu jëm ci terre bi. Mhm. ma gis Oumar Youm def ci benn sortie pour tontu ci loolu. ndax jàpp nga ni loolu dafa nuru ingérence wala pour yow lu aay la parce que tam li mu wax mën nañu jàpp ne loolu la ñëpp wax man bi ma dégloo euh, ki nga xam ni mooy euh, Abdou Ndéné Sall dafa wax ni avril bi nga xam ni moom la moom la ñu avancé mën na nekk mën nañu ci essayer li nga xam ni moom mooy train bi mais bu fekkent ni aussi tout si qui est technique baaxagul dañuy bàyyi ba ca kanam mm. donc moi pense que loolu est-ce que war na indi euh, coow lu mel nii quand xam ba xam nga xam nga xam nga Pape le Sénégal est un état nag te quel que soit rapport yu ñu mënti am ak benn dëkk ci xarito bi ci relation diplomatique yi euh, partenariat économique wala leneen lu mu mënti di doon je pense que ku nekk da nga garder sa souveraineté. Mm-hmm. Pape yow mun nga toog ci sa. fii wala sa biir kër di wax teer bi nii heure bi lañ ko waroon kii sax parce que vous êtes sénégalais bu la neexee nga wax ko am nga ci plein droit <laughs> mais je pense que tey jii nii quant une autre personne mel ni comme si dafa am lu muy dicter état Sénégal mhm. je pense que là aussi c'est pas des choses qui passent mhm. ba tax na man dama jàpp ne que rek euh, le ministre Omar Youm a raison de recadrer recadrer mooy lan tey état du Sénégal moo am mais est-ce que moom moo ko waroon def Mariam est-ce que bu fekkente ne mbiru diplomatie la est-ce que du Amadou Ba moo ko. mais est-ce que loolu du du du lu ñuy wax kako fu Mariam est le ministre en charge de la question. waaw mais xam nga lii aussi dafa. mais mënoo ko ci génne. parce que bu fekkente ne moom il a tous les éléments et il a l'autorisation du gouvernement pour wax ci loolu mais man gisuma ci euh, lu lu lu tax waru ci mën a wax léegi nag il faut nit ñi jàpp ne que c'est pas parce que. Euh, keneen la ko jóge fii que war nañ ko ah, xëy na jox xam nga loo xam ne aussi ci wàllu ne la même bu fekkente ni ki ko wax xam nga ni diplomate la est-ce que hmm. jàppalu woon ni euh, euh, réaction boobu Oumar Youm def mi ngi gënoon jekke ci Amadou Ba mu def ko waaw mais xam nga bañ koy def ak bañ koy wax man xawma ci yan condition lañ ko defee parce que man moom lépp li ma wax dafa leer mais li nga xam ne c'est un principe sur lequel en mhm. tout cas moi je mhm. mooy tey amul kenn ku war a jóge ci beneen réew di te Sénégal nan ngay doxalee say projet waaw bu dee bu dee bu dee partenaire bu dugalee loxoom ci projet yi nag. mais tey jii nii ak loxo bi nuñ ko mënti di dugal di dugal aussi euh, Sénégal comme ni ma ko waxee léegi nous sommes souverains hmm. souveraineté ba ci ba ci ba ci lan souveraineté bi eggul ci te tey jii nii eggul ci du du dara loo xam ne aussi euh, lu ñu lu ñu mayee la parce que loolu aussi dafa baax ñu koy xam. Hmm. c'est des investissements yoo xam ne président Macky Sall moom moo taxaw ne dafa bëgg. vraiment am ay réformes yu bees transport bi ñu améliorer ko ainsi de suite ainsi de suite mais ci li ma xam daal te mën ko wax mooy ne que man dama jàpp ne que Omar Youm lu mu wax dara nekku ci. Mhm. waa d' accord euh, mu nekk ci jamono boo xam ni itam seen parti muy APR dafa dafa bëri. pëccëxoo dafa bëri coow euh, pëccëxoo bi yaa ngi ko gis ci biir Macky 2012 euh, gis nga li fa xew euh, ñi nga xam ni ñoo ànd ak ak directeur bu dem dikk bi ak ñi nga xam ni itam ñoom ñooy aji Mbergane Kanouté ak mustafa Diagne coow yooyu nga xam ni mu ngi am foofu ci ci ci biir Macky 2012 lan nga jàpp ni moo ko war a mën a indi pour yow personnellement. en fait xam nga politique moom Pape du ma ne moog coow ñoo ànd. waaye euh, des fois bu amee ay coow rek nañu jàpp ne que xëy na parce que y a un dynamisme qui est là euh, parce que bu fekkoonte ne. ak ak manque d'autorité. manque d'autorité c'est pas parce que manque ku wax Macky 2012 xam nga ni xam nga ni Macky Sall moom mooy seen. moom mooy seen moom mooy seen moom mooy seen leader. manque d'autorité bu ñu tegee coow bu mel noonu muy bëgg a yàgg bientôt mu def. manque d'autorité budul manque d'autorité lan la manque amu fa. mais lépp lu ñu nekk nekk nekk ci ci ci ci biir entité bi aussi su fekkente ni ñoom c'est des responsables de parti yu différent entre temps ñu teg kii dem ba ci biir am problème seen biir mais problème bi ñu am seen biir mais est-ce que loolu président moom mën nañu wax ne que parce que dafa manque d'autorité. Non, problème bi kay du seen biir problème bi fi mu nekk nii wër na àddina bi. non dama la bëgg a wax ne que. Ah, mais du ci seen biir aussi dama la bëgg a wax ne que. tey jii nii xam nga fu mu doon a métti. ñu toog ne Macky 2012 dee na mais ba tey comme am na attraction bu tax ñëpp ku ci nekk ngay taxaw di wane sa bopp di firndeel di taxaw di naan may lii may lii may lii nañ jàpp ne que rek parce que les gens ont envie de faire vivre les choses mm-hmm. léegi nag comme li nga wax lépp loo gis aussi am na fu mu yem mm-hmm. balaa ñoo yegg foofu aussi ñi wax war a wax ak ñoom nañ wax ak ñoom mm-hmm. mais dama jàpp ne que tey jii nii rivalité politique moom yàgg na ci réew mi bu dee fu rivalité politique ñu wax nañ wax ne euh, manque d'autorité kilifa gi moom kon xanaa sax je peux dire que ça a été le cas pour tous les régimes mm-hmm. parce que xam nañ tendance politique nan la mës a doxee ci biir réew mi mm-hmm. mais ak képp kuy responsable ku ko mënti di def aussi da ngay am ci sa biir xel ne ko aussi que tendance dafa am fu mu yem warul la dem ba affecté li nga xam ne moom mooy système bi au sommet moo tax may appeler les responsables de Macky 2012 nañu toog waxtaan ay kilifa lañu ay mag lañu. te ku nekk dàq sa morom camp bu nekk dàq sa morom. waaw mais xam nga c'est-à-dire loolu nga ba pare nga ma wax ni ma autorité am na amul manque d'autorité. cest à taxaw di xool loolu quoi di xool yoo xam ni kenn xamul lan lay nuróol. amul manque d'autorité nag Pape gis nga politique du sa biir kër bi nga yor lu la neex nga def lu la neex nga bumi déedéet c'est des gens responsables mais li ma la wax moo ci nekk ak coow lu mu mënte demee demee demee buñ demee ba ci biir. demal ba ci biir ba xam. Mhm. lu ñuy régler la léegi yàggatu parce que dafa am yoo xamante ne aussi mënuñu accepter muy continuer di raam di raam di raam ba ñëw fekk suñu. léegi bala ñu koy regle mën na dafay dégâts. dinañ ko régler ci li ñuy gis parfois ci yéen jeunes yi par exemple xeexoo boo xam ne deret mën na ci tuuru wala leneen mën na ci am jeunes yi kay génnee ma ci ah. <laughs> jeunes yi ñu ngi feree waaw mais li ñuy gis rek ci yéen quoi li ñuy gis non non au fait du lu ñuy gis si ñun gis nga pap man souvent dama ko doon xappale mhm. xëy na nit booy booy booy comparer sax xëy na comparer li nga xam ne tàmm nañ ko wala gën nekk na ay ngëneel mhm. mais dama jàpp ne que tendance politique ak adversité politique lam daan jur ci réew bi APR defu ci un centième. Mhm. lu ma gëm la man parce que xam nga lu tax la plupart des militants de nos responsables de nos de de de de nos localités yeeg ñëpp ñëwuñu. nekk ay politiciens professionnels y une cause qui est là ñoom ñu jóg accompagner ki nga xam ne moom mooy président. mais ñëpp xam nañ ne que Pape parti socialiste bu njëkk ba. PDS bu njëkk ba bu mujj bi ah li fi xew ak ay yeneen année ak liy xew feneen mais. mais mais mënul yem aussi parce que yéen trois ans ngeen def opposition dem au pouvoir donc yéen mënu leen yem ak kenn te puis te te am leen une partie aussi organisée parce que tey bu fekkoon am ngeen une partie organisée mais loolu mënu ci ñàkk li ngay wax ci parti socialiste daf fekk mu organisé li ngay wax ci PDS daf fekk mu organisé loolu moo tax aussi du ñàkk ay si un parti organisé kay moo war a ñàkk xeexam non déedéet au contraire non non parti bu ñu organisé rang yi jub. non non non jiitu ma topp ci déedéet déedéet warta am xam nga xam nga kañ ko non non non bu ngeen doon dem ci ay congrès. wala ngeen doon dem non li may wax ni su ngeen doon dem ci ay instance di ko régler ci ngay xam ni seen parti li mu nekk parti bu ndaw moo tax mu mënul am coow. dégg nga ba tàyyi ñu naan la bëri bu deful dara du yëngatu. APR du parti bu ndaw nag. yow lan mooy baromètre bi nga xam ne moom mooy tax nga jàpp ne lii parti bu ndaw la. mooy li mooy li nga ma wax rek li nga ko méngalee ak ay parti socialiste wala ay. ay PDS xam nga parti yooyu man dama defaral jeunesse ne la par exemple parti socialiste ba mu nekk ci digg ndëndam. Mhm. boobu xëy na ñun ay xale lañ. wala même avant kenn xamul. Mhm. PDS mais xeexu UJTL fii la ñu fekk. moo tax man ne xeexu Cogéris aussi fii la ñu fekk. mais mais xeexu Cogér laa la wax. <laughs> Cogér yi fii ñu fekk ah <laughs> du un centième. Cogér fii la ñu li daan am ci jeunesse politique. ok. ma leen di encourager bu dee dañ dañ doon xeex je pense que aussi du dans le sens négatif ay ndaw fu ñu dajee dinañ xuloo dinañu waxtaan dinañ juboo mhm. mais tamit dinañ dem liggéey à l'essentiel mhm. je pense que c'est ça qui est important léegi nag ci parti bi ba tey ci li may wax parce que c'est mhm. important euh, yàlla may nañu suturaal ñu très sincèrement parce que Pape nga nga créer parti ñetti at ñu jox la nguur nga dem élection ñu renouveler la euh, Sénégalais yi renouveler suñu confiance je pense que tey jii nii war nañu gën a góorlu suñu biir. Mhm. góorgóorlu suñu biir mooy lan jàpp rek te yàlla tax. Mhm. ku ne bañ a jiital sa bopp. Mhm. parce que mën a mën a ñun ñëpp kenn ci ñun. individuellement doo dara. mbooloo moomu moo ñuy may doole. ku xool yéene gi président Macky Sall am ci réew mi xam nga sànq wax naa la ko nee naa la même bu dul ay affaire yaa ngi fii wala yaa ngi fii li ngay ñëw gis ay transformation yoo xamante ne c'est réel daanoo nos communautés commune daanoo communes lool dafa nekk loo xamante ne ku ne daf la war a jox engouement bu war a tax nga gën a liggéey. Mhm. ku doon complot na ko bàyyi. kuy histoire na ko bàyyi kuy andi ay coow na ko bàyyi xam ne gis nga nguur àndul ak coow. Mhm. mbir bi mooy. gestion du pouvoir dafa ànd ak sérénité. gestion du pouvoir dafa ànd ak responsabilité. ok ba tax na. dañoo war a gën a def lu focus sur ça parce que nag président tey man du ma ne euh, dama koy gunge ba pare di wut ay pexe walla ay plan yoo xamante ne Jurbel na yàqu Cees na yàqu buur na yàqu amul sens. li ngay bëgg a wax man comprendre ko da nga ci bëgg a waxaale sa soxla man xaw ma lan nga bëgg non li ma bëgg a wax wax man c'est un message que je lance aux responsables de mon parti waaw da nga ci gis ay comportement yoo xam ni apprécié wuloo ko apprécié wu ma ko ok ma bëgg nag vraiment ñëpp nañu taxaw mhm. xam ne benn bu ñu doonoon moonu may nguur mhm. ñu defaat nii amaat ko leneen luy ñëwaat aussi kon bëggaat ngeen ko nguur mais mais Pape waaw bëggaat nañ ko mooy lan ah mais attends. mais seen yéen seen dernier mandat non waxuma non attends. non non non attends. Euh, Pape Ngagne euh, madame le maire Pape Ngagne fi ma jëm dafa leer de APR c'est un parti pourquoi on crée un parti pour la conquête du pouvoir et gérer le pouvoir mais également améliorer les conditions de vie des populations. mais waa PS ñu ngi lay dégg de say alliés lañ. waa AFP ñu ngi lay dégg de say alliés lañ mais su ma nee APR c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar. non. ñun ñëpp ñoo ànd. <laughs> li nga wax. xam nga waxoo loolu xam nga waxoo loolu. parce que message bi ma njëkk a dama ni waa parti socialiste ñi ngi lay dégg ci li nga wax. waa AFP ñi ngi lay dégg say allié lañu. xanaa doo ma wax ni ma dañu lay ànd ak yow. ba nga am nguur après nga continuer waat pour ut kaw ñoom bëggaat ñu gunge waat la. parce que Pape ci dynamique boobu ngeen bëgg a nekk yéen waa yéen yéen yéen waa. boo ma message bi ma lancé. Mhm. bi may introduire sama propos lancé wu ma ko waa PS lancé wu ma ko waa AFP ci sama waa parti laa nekkoon mhm. xëy na yow yaa raam ba dem ci ñoom c'est des alliés que je respecte ñoo xamante ne. d'accord on a tous léegi nga ni nga ni da ngeen bëggaat nguur. déggoo ma ne la. waaw. coalition Benno Bokk Yaakaar. d'accord muy APR. waaw c'est un parti qui la là. yaa ngi dégg. Mhm. donc tey jii nii ñun mission bi ñu am li nga xam ne moo taxoon ñu créer parti bi mooy liggéeyal askan wi. Mhm. dem ci liggéey boobu ci loolu lañ nekk. je pense que tey jii nii amul dara lu mën a tax ñu ne nañu nañu nañu bàyyi. Mhm. maintenant ak kan ak kan la ñuy àndal mais loolu parce man xam naa fi nga ma bëgg yóbbu. fan laa la bëgg a yóbbu. xam naa fi du ma ko wax. mais li ma lay wax mooy ne que xam na bu baax lu muy wax. non mais mani waxuma. affaire xam nga Thérèse bu taxee fi naan xam wax loolu wax Thérèse bu taxee fi xam na li muy wax loolu wax ju bu taxee fi naan Thérèse xam na li muy wax. loolu non bëgguma la yóbbu fenn lu dul yow da nga ni ma da bëggaat pouvoir nga ma wax. loolu nga mu wax. da ngeen war a da ngeen war a da ngeen war a teere teere seen ay këréel parce que da ngeen ko bëgg da ngeen xam nga yow xam nga dima mhm. la wax dafa leer dama la ne pouvoir dafa ànd ak sérénité. waaw dafa ànd ak responsabilité. Mhm. mais ànd ak liggéey. ok te askan wi dafa am lu ñu jox. Mhm. nañu jàpp ci loolu liggéey te yàlla tax. ok ci nga ma laajee. ma ne la ban appareil politique mooy jot nguur ba pare ne da koy bàyyi. mais yow li nga foog li nga bëgg a wax mooy est-ce que président Macky Sall day présenté waat loolu nga ma bëgg a wax. man xam naa ne fa nga jëm ak man. ma bëgg la ne nag président Macky Sall wala du président Macky Sall y un système qui est là appareil politique bi laa la wax. Mhm. li ma wax leer na Pape. d'accord appareil politique bi notamment. mais li ma wax leer euh, euh, bëggoon mu leer ma rek mooy loolu mooy kon peut-être euh, sant président Macky Sall lay nekk. xaw ma. ak lépp lu mu mënta doon dama la ne appareil bi laa la wax li ma wax kay leer na Pape. d'accord non leerul de. ak a leer sinon leerul. madame le maire c'est-à-dire da wax li ñëpp yi wax rek mais leerul. ak kan leer non non da nga da nga da nga non non ñëpp yi wax rek. mais xam nga ni leerul. yaa bëgg a te man loolu man loolu man moom vraiment. Ah, xëy na peut-être dans dans l'avenir xëy na dina a soppeeku. mooy seen seen seen seen tëgg ngeen di fecc xëy na dina mës a soppeeku yéen waa APR muy wax lu jëm ci eh, candidat président Sall di ci mandu à ce à ce point. Euh, mais danga wax dafa ànd ak sérénité dafa ànd ak wàññi mais dama gisul ngeen doxale ko ci kaaw Moustapha Diakhaté gisuma vraiment ngeen cest à ku am benn position rapidement ñu dàq ko euh, ci ci ci ci euh, ci ci poste comme comme ministre conseiller euh, jóge fa dàq ko complètement ci parti bi mais loolu est-ce que est-ce que loolu ànd na ak ak li ngay wax. ni mais am problème rek ñu dàq ko c'est comme si APR dafa dàq ay militants yu bëri. le cas Moustapha Diakhaté kese la APR mës a taxawee dàq militant li may wax leer na képp kuy responsable APR ak kuy militant ak foofu foo mën a nekk. Mhm. c'est la première fois. APR mais dafa waruloon am. mais 13 loolu dafa waruloon am. lu tax warul am. tax lu tax warul am. c'est-à-dire man mu ak mënuma comprendre que. Ah, ci ay lan mooy parti politique. waaw lan mooy parti politique. parti politique. association la. ak liberté. yu am ay text ak liberté am ay règlement waaw. am code de conduite bu leer. Mhm. boo xesee ba ne dama jënd carte APR. mais dafa am des règles yoo xamante ne waroo ko wàcc. waaw mais mais nag am na loo xam ne boo ko defee sax. est-ce que xam alliance pour Macky Sall la est-ce que alliance pour Macky Sall la boo ko defee sax est-ce que alliance pour Macky Sall la. am na loo xam ne alliance pour la République la. te man gisuma benn déclaration wala benn kaddu Moustapha Diakhaté bu génn la République. déglu ma alliance pour la République boobu mu doon moo tax ma ne la ay règlement intérieur la statut la code de conduite la képp ku taxaw di ngaa jënd euh, carte APR. dangaa war a respecter loolu boo demee ba ne nag da ngay taxawal courant wala mouvement wala leneen loo xamante ne danga ne gisatoo sa bopp ci biir dangaa autoexclure sa bopp sax d'abord mm-hmm. loolu la mm-hmm. donc tey jii ni APR lu mu def encore une fois du loo xamante ne mais dafa dafa dafa wuute ak say recommandations quoi yow. dafa li ma gis ci cas Moustapha Diakhaté dafa bokkul ak lépp loo gis dafa am limite. te gis nga boo taxee ma doon junj loolu c'est pour ñu bañ a eggati foofu moo taxoon ma doon waxee foofu mais mm-hmm. encore une fois un parti c'est un parti boo nee da ngay jënd carte parti bi tu es soumis aux règles ak li nga xam ne lépp mooy code de conduite parti bi mm-hmm. n'empêche nag séparation moom du loo xamante ne vraiment neex na mm-hmm. waaw du loo xam ne aussi dañ koy souhaiter mais aussi bu fekkente ne wax ci biir néeg wax ci biti te nit ki taxaw ci ay position je pense que parti bu jëlee responsabilité am aussi loolu man awma ci lu ma ciy wax. Mhm. danga nga ciy ànd et préciser aussi que c'est la première fois muy am. Mhm. parce que il faut pas aussi ñu joxe impression ko waa APR chaque fois dañuy dàq ay militants non non. Mhm. benn yoon lañ ma sa dàq. militant muy waxuma na nekk bu c'est-à-dire mu nekk fukki yoon ak mu nekk benn yoon dama bëgg nga jàpp ni benn la exclusion la ci parti. waaw bu ñu jàpp ni parti démocratique la. est-ce que exclusion ci parti c'est une première nga ko gis dans le champ politique sénégalais. non mais loolu li ngay wax ni du tontu bi aussi man. non non mais mais non parce que ko bëgg a dramatiser. egg non non dramatiser non non parce que tey jii yéen ni man Thérèse su ma amee lu ma metti te mënu ma ko waxee fi ma ko war a waxee mais mieux vaut ma xam ne su ma demee nag ba wane ne que lii ak lii àndatuma ci lii ak lii laa nekk mais les gens ont tiré les conséquences. mais am est-ce que am na fu mu koy waxee. est-ce que am na ah. ko. est-ce que am ngeen am ngeen ay bërëb yoo xam ne fu ngeen a invité ko nga laaj <laughs> ci leneen ci wàllu politique dafa am loo xam ne ñu ngi koy dégg muy ville de Dakar. Mhm. Euh, dégg nañ ci nga xam ni mooy Aminata Mbengue Ndiaye jiite HCCT. Mhm. Euh, mu wax euh, statut spécial pour ville de Dakar muy mairie bu Dakar am keneen koo xam ne déggoon nañ ko mu annoncé lu mel noonu jëm ci nommer le maire de Dakar par décret da ngeen bëgg egg foofu pour euh, ak seen euh, est-ce que yéene la boo xam ni gouvernement bi daf ko am pour pour pour Ndakaaru. loolu de ni nga koy liiree man noonu laa koy liiree ci presse bi. Mhm. Euh, Aminata Mbengue Ndiaye nag suñu yaay ju baax la nekk présidente au conseil des collectivités territoriales. Mhm. xëy na xalaatam bu mu am la joxe ko. Mhm. mais parce que ci li ma dégg commentaire yi. ñun ñoo ngi jàpp ci diw démocratie recul démocratique te am na loo xamante ne dama jàpp ne que rek bu ñun ñi dem gaaw a def ay commentaire ci loo xamante ne xëy na euh, kenn amul les tenants et les aboutissants mhm. leneen li nga xam ne aussi bëgg naa ko wax mhm. mooy su ñuy wax statut spécial pour Dakar euh, képp ku ko wax rek xëy na am nga lu la inspiré pour nga wax ko tey boo demee par exemple Abidjan Côte d'Ivoire yooyu am na fa mooy ñuy tuddee ay district Mali bi am na fi. Ah, moom noonu la ko expliquer sax ci exposé. ak ak yeneen ak yeneen mais li ma mën a expliquer. Mhm. mooy euh, tey su ma duggee ci collectivité territoriale. Mhm. nuñ koy gérer li may wax nii rek c'est par rapport ak as toute expérience bi ma ci am. Mhm. nuñ koy gérer. surtout la gestion des budgets et des ressources. tey le département de Dakar a 19 collectivités mhm. locales de mhm. plein exercice mhm. plus la ville kii bu nekk commune bu ne ñu ne la sa budget ngi ni yow yaa koy gérer sa bopp ñu dem ba ne euh, commune bu nekk aussi am nga lu ñuy wax territoire par exemple Mermoz fii la yem Sicap fii la yem Nangam fii la yem léegi xëy na Amintan dem na ba xam ne que li tax mu koy proposé dama jàpp ne que rek yaakaar na ne que am na beneen mode de gestion bu gën a efficace boo xam ne dina gën a amal njëriñ askan wi. ci sama xalaatu bopp. mais loolu bi ñu ko waxee ci dakaar mën nañ ko wax pour jam ñaajo parce que je ne veux ñi wax def benn focus ci euh, ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay situation politique foog ne ay. mun nañ ko wax ci jam ñaajo je m'explique le maire de jam Diamniadio et de l'Alliance pour la République mm-hmm. mais par exemple à jam Diamniadio où le pouvoir à pris Euh, a fait un pôle urbain mm -hmm. pôle urbain de Diamniadio def fa ay investissement am fa ay projet phare presque ñu war a wax ne que c'est la deuxième ville mm-hmm. mais est-ce que avenir ville boobu aussi waruñu ko xalaat non man fi ah, ngay li ngay li ngay wax li ngay wax nii ak li may wax vraiment d'accord naa ak yow. ci ci li ngay wax jàmm non dama bëgg ñu ñëw ci dakaar ak euh, nomination maire am par décret maanaam Macky Sall bind décret pour fal mooy nekk maire Dakar Macky moo la ko wax. non damay dama dama lay xam nga waxuma la Macky Sall moo ma ko wax <laughs> Macky Sall waxul ak man mais li ma lay wax. dama lay laaj ndax loolu ci dégg-dégg rek yow du deltu ginnaaw ci wàllu démocratie. lu tax ngeen bëgg ko sukkandiku uniquement ci démocratie. mais parce que démocratie élection la démocratie mmh. majorité la ak minorité ñu dem ci ay élection ñu gis loolu ci Ndakaaru démocratie moo tax les dix neuf communes yuy composé le département de Dakar élection moo fay am ñu am seen maire mmh. loolu du démocratie non la la non. non non wuyu ma rek. loolu du démocratie lay wax. non non mais xam nga dafa am lu ma la expliquer léegi te mënoo koo comprendre. dama la ne le département de Dakar a 19 collectivités territoriales les 19 collectivités territoriales mais ku ci ne da am sa budget am sa territoire. Mhm. bu ñu waxee waxu démocratie mais la démocratie démarre là-bas d'abord ma jox la léegi exemple jam Diamniadio ne la bu fekkente ne par exemple danañ ba gis ne que investissement yi am Diamniadio ak perspective yi fa état am dafa ne nañ ko def par exemple. Euh, statut spécial est ce que bu boobaa dinañ ne recul démocratique la tout en sachant que le maire de Diamniadio est de l'APR mm-hmm. ñaata ville ñoo am Sénégal Guédiawaye du ville ah ak yeneen ak yeneen je pense que peut être xëy na moom xalaatam la joxe mais même bu fekkente ne xalaatam la joxe aussi bu ko nit ñi gisee ci ci recul démocratique am na mm-hmm. conséquence positive yoo xamante ne mën na ko am ci ko budget budget euh, ville de Dakar ñaata la Euh, bari na. Ah? ëpp na ay soixante et quelques milliards daanaka. quatre vingt milliards. Mm-hmm. Mm-hmm. presque. Mm-hmm. mais quatre vingt milliards yooyu bu ñu ko retourné par exemple ci commune bu nekk exemple laay wax de man xaw ma luy xewi ëllëg mais bu ñu ko retourné ci commune bu ne ñu séddal leen ko loolu est-ce que ku nekk du ko doon def benn doo gën a def fukk est-ce que loolu recul démocratique la. d'accord su ko defee mairie Dakar wala amélioration condition de vie population yi la. d'accord. non non dama lay wax rek. non non non li ngay boobu noonu ah. waaw gën a tayal xel yi. dafa mel ni par exemple seen objectif la euh, pour que Dakar euh, dootul nekk dootul dootul dootul dootul am maire. sa à am statut spécial. man de waxuma loolu non ni nga xalaatee. loolu non waxuma lool mais man ci sama expérience bopp laay wax. parce que tey boo ñëwee commune Diarekh su ma la nee fonds de dotation ren maa ngi am 23 million fonds de concours maa ngi am 66 millions ku ma yokkal ma jël te lañ may jox ci askan wi laa koy defaat. tey par exemple les département parce que sax mën naa faa dugg xam naa ne président conseil département yi loolu du leen neex ma wax ko mais c'est pour mieux étayer man li ma doon expliquer léegi tey un département ak budget mag lépp est-ce que ay intervention dina dina gën a renforcer li nga xam ne moom mooy commune yi c'est pas toujours le cas. en tout cas recul recul nu mënul passé par exemple loo xam ne depuis 1920 ci la Ndakaaru amoon maire fii mu nekkoon Blaise Diagne. ñuy demaat ba presque deux mille vingt ñu naan dañuy nekk fii naan dañuy xoolaat beneen statut spécial pour Dakar mais yaa xam li nga waxee mel na ni xam nga li xew. xaw ma li xew exemple bi nga joxe nii mel na ni xam nga li xew. non non Pape man li ma la wax je di l'ai dit par expérience par expérience laa la ko waxee xaw ma luy xew mais dama la wax ne que. cent ans après ñu bëgg ñu delloowaat ci ci leneen loo xam ni kenn lan la recul démocratique ok képp ku fi la fal ok ñu ñu ñëwaat ci wàllu politique euh, euh, mbiru Karim Wade ak Khalifa Sall dafa mel ni seen amnistie euh, dañ ko proposé ci li nga xam ni moom mooy dialogue politique bi ñi bokk ci APR wala ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñàkk ko apprécier ndax loolu dégg nga ko ci dialogue politique bi ak ban gis-gis nga ci am ci lu aju ci wàllu amnistie boobu <laughs> xam nga dialogue bi nag ci laa bokk mhm. membre comité de pilotage mhm. mais nag code de conduite dialogue bi ci luñ la mandatewul mhm. amoo droit wax ko ci média yi boo bëggee nag sama appréciation. loolu tax ma lay laaj. personnelle sa appréciation personnelle. peut-être par rapport ah. à cela. Mhm. man damay wax ne que rek c'est une question boo xam ne man mënaguma ci xuus tant que ñoom seen li nga xamante ne moom mooy euh, proposition yi ñu war a andi. Mhm. ci plénière bu mag bi. ñu tënk loolu parce que ku ne fa ngay waxee sa xalaat. Mhm. soo ko yóbbu ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi. Mhm. ña fa toog ñëpp nag ci commission bi opposition mu nga fa société civile mu nga fa majorité mu nga fa pouvoir public mu nga fa euh, secteur privé ñëpp a nga fa. Mhm. mais ma jàpp ne que rek nañ leen wóolu jàpp ne ay borom xam-xama fa ne mais aussi ñu am yéene ci réew mi ñoo xamante ne gow ma ne dinañ wax loo xamante ne wala dinañ tënk loo xam ne day yóbbu Sénégal ginnaaw. question boobu loolu laa ci bëggoon wax. Mm-hmm. d' accord euh, muy mel ni kon bu bugguloo ci sori ba tey ci loolu. <laughs> waaw ba tey boo bëggee. ok mu mel ni daal lépp lépp loo xam ni bugguloo ci sori di nga di nga ut sa sa alibi boo ci boo ci génnee mais mbiru Guy Marius Sagna moom di nga ko aborder parce que dangeen bokk génération nekk ay ndaw. Euh, cas bu mel nii daal ci kawam. Mhm. loolu mën nga ko jàppee kon une recul démocratique. koo xam ne dafa ñaxtu dem ci euh, gris palais. Mhm. ñu jàpp ko def ci kaso bi. Mhm. depuis presque bientôt trois mois. mënul fexe ba loolu jàpp nga ni itam lu war a am la. xam nga kii euh, Pape dama bëgg a wax ne que euh, li nga xamante ne moom mooy mbiru Guy Marius Sagna euh, prison du lu ñu yéene kenn comme ni ko waxee ndaw la ñoo bokk génération il a ses principes am ligne de conduite am nekk ci mais pour son cas dama bëgg a leeral ne que la responsabilité pénale et toujours personnelle. Mmh. parce que tey. am na ñuy naan ñu mu àndaloon lu tax ñu génnee leen bàyyi ko fa. Mhm. Babacar Diop xam naa ko bu baax sama grand la bokk na ci ñi ma formé syndicalisme sax à l'université. Mhm. mu nekk liste blanche man ma nekk liste bleue. Mhm. ku ma jox cër la tamit mosuma koo déggal prison c'était la première fois. à part prison temps yooyu noonu grève ñu tëj la ñaari fan nga génnaat. ñeneen ñi tamit idem mais Pape bu ñu waxalee yàlla rek te yàlla tax. Guy Marius Sagna ñaata yoon nga dégg ay contention ak justice du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon. ah mais ça n'a rien bul wax ne ça n'a rien à voir. bul wax ne ça n'a rien à voir si ça n'a rien à bul wax loolu. ci fee bii ñu ko jàppee nii jàppandoo ko ak ñeneen. mais jàppandoo ko ak ñeneen. waaw bu fekkente ne nag danga am ay sursis ñeneen ni mu yombee ci ñoom bu ñu génn du doon le cas question de justice la sax nag moi je suis pas là pour commenter lan la. wax nga ci li a wax ba pare commenter mais li ma ci bëgg a wax mooy. <laughs> mooy loolu. bu nit ñi comparer lu xamante ne c'est pas comparable. Guy Marius Sagna a eu toujours des dossiers à la justice. mais cause bi ko fa yóbbu nag. ci xeexu les causes bi ko fa yóbbu. Pape ma fàttali na ne ay étudiants APR fii la ñu war a dem réunion yeegri yu ñu jàpp leen tëj leen parce que dañu def violation loi loolu bu ko kenn fàtte. donc ndem ñooñu noonu la mën a demee ci ñoom aussi asatuma Guy Marius Sagna ak képp ku mu mënta doon ci réew mi giiri pale nga dem ne da nga fay taxaw ne da ngay manifester la war a def yow ku la fayoon milliard doo ko def <laughs> parce que bu dul dara sax xel da koo nanguwul saay bu opposition demandé marche place bii nga xamante ne moom mooy euh, place de l'Obélisque ñu autoriser leen ko mais quant à aller une marche vers la le palais dem ba ci gris loolu c'est provoquer un état man noonu laa ko jàppee. waaw ah, loolu non loolu yow yaa ko jàppee noonu parce que nekkoo ci boppam xamoo itam bi muy taxaw ci gris bi lan moo nekkoon intention xëy na ah c'était juste pour message am mën a passé la. loolu loolu am na ko mën a jàppee noonu. message moom bu taxawoon fungal mi sax mu jàll. média yaa ngi fi efficace ba bëgg dee lu waaye bëgg wax léegi ci réew mi ak foofu foo mënta ne dina am ñu la fekk tàllal la seen micro nga wax sa soxla dem. d' accord merci beaucoup madame le maire ma bàyyi la bu fekkee am nga message booy. booy booy <laughs> xanaa nuyu sama mbokk waa parti yëpp. Mhm. nuyu waa Sénégal nuyu waa agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits jàngalekat yeeg mère assistante yeeg conseillère familiale yëpp. Mhm. waaye nag particulièrement aussi la population de la commune de Diarère. Mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen di sant. Euh, di gërëm ñëpp di la remercier yow tamit ci invitation bi di wax ni euh, ba beneen yoon jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon euh, Thérèse fay Diouf moom la ñu dénk lépp lu aju ci case de tout petits ak petite enfance bokk ci parti bi di APR ñu doon ko recevoir tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias ñu koy gërëm bu baax ci ànd bi nga xam ni ànd na ko ak ñun tey ci émission bi di leen jox rendez-vous incha allah àllarba bële di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf. yow yaa ko ëpp yaa droit kon mën nga koo rey. ndax